wa diinil xaqi li yuthirahu ala diini kullihi walaw kariha al mushrikun bokki jullit yi salaamun min allahi aleykum wa rahmatuhu wa ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax e, te itamit di leen ñaanal jàmm ni ñu leen ko digge woon ci mbiru Mali e, kenn ku nekk xam na ne xat na waaye dama ne woon su ma xëyee balaa journaux yee tàmbali ndax ñaare dañ koy tàmbalee ci journal yi bind ci francais xool nu ñuy defee tarjama bi euh, tarjama bi min luqatil faransiya ila luqatil arab ila luqatil wolofiya loolu ci lañuy xaw a yàgg tuuti waaye ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm fas yéene nag ñëw ci wàllu Mali ak itam na mu tëddee ak la fa xew sant ñëpp gërëm ñëpp di sant waa waxul ja alxaq yëpp itam E di leen feddali suñu colère ci yéen ndax nit moom lépp lu muy wax rek yàlla na xam xukma yi nekk ci biir comme rawat naak xukmullah bu fekkente ne àddina lu fi yëngu rek yàlla ko yëngal ni ko borom lax dar yi waxe woon rek du dagan mukk ci nit ki e, laa yaxilu ala ala al mumin an yafaala fialan xatta yaalama xukmallahi fiihi waaw ak ala kulli cheyin ak lu mën a doon loolu borom lax dar yi moo ko wax waaye nag ñu daal di dugg nag kon fi ñu toll nii ci waxtaan euh, pour tàmbali fokk ñu xam ne ginnaaw bi ñu leen nuyoo Mali ci boppam mat na juróomi yoon lu mu gàtt gàtt mbaa lu ko ëpp Sénégal ci wàllu yaatuwaay moo tax noor bi bëtu bët gannaaru réew moomule yaatu gi mu yaatu ëlëm nañu baree bari mooy ñaar fukkeelu réew ak ñeent ci àddina bi bu gën a bu gën a ngand vingt-quatrième pays ci les pays les plus larges les plus seen étendues yi gën a yaatu bu ñu ko doon compter ci àdduna bi yëpp Mali moo jël vingt quatrième place bi yaatuwaayu Mali ci boppam mi ngi toll ci un million deux cent quarante et un mille deux cent trente huit mètres carrés million deux cent quarante et mille deux cent trente huit loolu mooy yaatuwaayu Mali nga xam ne Sénégal tey mën ko ko fab dëxañ ko juróom yoon ci biir Mali ci yaatuwaay Mali googu nag tudd loolu Mali wax dëgg yàlla Mali moom daanaka bu mu koy tudd mu ngi nekk 22 septembre 1960 ñu tuddee ko république Mali waaye lu jiitu loolu fédération di Mali moo amoon diggante Sénégal ak Mali Sénégal ak Mali benn réew la woon benn réew la woon ñu tuddee woon ko fédération du Mali ñu ko wax Sénémali loolu mi ngi amoon fa tabarakallahu ci ñaar fukki fan ci weeru juin ci 1960 waaye yàggul. ñu dem tuuti 22 septembre 1960 affaire yee jeex euh, Mali dem ak ñoom Modibo Keïta dem ñoom président Senghor ku jël seenu république ñoom tam loolu noonu la tëddee waaye kon bu ma waxee ne Mali tuddul woon Mali war naa wax nit ñi kon nan la tuddoon kon Mali mi ngi tuddoon Soudan français waaw képp koo xam ne kii judd nga ca Mali lu jiitu 1960 ba ci sax 1960 ba ci lu jiitu 22 septembre man mën nañu wax ne kon kooku xanaa. Euh, boo seetloo ba seetloo ba seetlu sax kooku da nga naan français la kon nag Soudan français la tudd pour ñu mën a campé réew mi ci boppam léegi nag bi loolu yépp amee lu jiitu coup d'état bii di am wax naa ne Mali am na quatre coup d'état waxoon naa ko fi duma ci dellu dellusiwaat yoo xam ne yi coup d'état bu ci nekk bisu talaata la am ba ci mujj bii mooy 18 août bii 2020 ñu jëlee fa Ibrahima Boubacar Keïta ñëwoon naa ci moom ñëwoon naa ci ATT muy Amadou Toumani Touré ak la ko fa jële waxoon naa ci Moussa Traoré coup d'état bi nga xam ne def nañ ko ko ak tamit moo di ba Keïta yooyu ay coup d'état la kon léegi Mali kon li ngay jàpp mooy Mali moom ci coup d'état moom mooy aadaam léegi nag bii yoon nag dafa am particularité maanaam dafa am lu tax ndax dafa am ku ne sërëx ci biir te àndoon ak ñoom muy imaam Mahmoud Dicko 1954 rek la judd xaw ko nekk mag loolu li ngeen koy gis ak jàllaa bi beeg yépp te sax waxuñu ne 1954 la juddu dañ ne vers 1964 maanaam xamuñu exactement bisu juddoom dañu ne rek amaana boori 1954 yooyu ci la judd ci Soudan français ndax moom salafiste la moom ci boppam waaye nag li gën a doy waar mooy dafa am tànk ci salafisme ak wahabisme amit tànk tuuti ci wàllu li nga xam ne moo di euh, mutasawifoon yi maanaam sufiyanke yi moom nag imaam Dicko ci taarix ba léegi moo jiite lii ñu duppee haut conseil islamique dafa am ci Mali lu ñu fa samp loo xam ne lii lu bokkul ak république ba ñu tuddee ko haut conseil islamique moom ci boppam moo ko jiite moom kii nga xam ne moo di imaam Mahmoud Dicko te juddu 1954 wala ci gox yooyu wala boog ci ci ci ci at yooyu daal moom nag bi mu nga xamee ne samp na euh, au conseil boobu boobule xam nga janvier 2008 ba avril 2009 septembre ak euh, le 7 septembre 2019 euh, yooyu yëpp loolu doyu ko mu jékki-jékki lancé beneen pro beneen mouvement ndax moom dafa dafa jiite conseil bi ba noppi lancé beneen mouvement. mouvement bi nga xamee ne lancé na ko nag dafa doy waar ndax tur boo xoolee ni mu ko tuddee benn bu ci nekk dafa laaj ñu def ci ay tawil ndax mouvement bi mu ngi ko tuddee euh, coordination des mouvements association et supporteurs xam nga boo boolee coordination mouvement yépp ba noppi itam daal di boole association yi ak kuy supporter nangam maanaam maanaam supporteur mooy ñu fay jàppale kon moom xamoon na fa mu jëm waaye itam fokk it ñu bàyyi xel ne imam di ko moom ci boppam imam di ko ca pale ba la nekkoon doon jàppale Ibrahima Boubacar Keïta léegi nag fokk ñu dikk ci kon lu indi xuloo bi waaye xam nga moom lu jiitu yépp di am dafa am ay ay ay ay xarit yu mu am ay xarit yu doy waar yu doy waar yu doy waar yu doy waar xam nga Iyad yi mi nga xamee ne xaritam la nga xam ne moom ma nga fekk euh, moom moom Tumbuktu la dëkk euh, moom moom kii Mahmoud Mahmoud euh, Dicko Mile Ashgali nekk Touareg nekk xaritam kooku 1958 la juddu ca Bagassa kooku moom sax euh, sëriñ bee ko magee ñaari ak yàlla Touareg malien la waaye diggante ak euh, ba 1991 dafa defoon allégeance maanaam dafa mel ne ku jébbalu ji woon ci MPLA nga xam ne MPLA mouvement populaire la boo xam ne bii pour ñu libérer Azawad Azawad benn askan la wu nekk foofu la islamiste yi Azawad bi sax ñoom lañ ko tuddee ndax Mali bu leen fàtte ne am ay naar yoo xam ni dañoo xaw a xeetoo ci naaru comme Mauritanie di nit ñu xonq ñooñu ñoom nag nit ñu jul ñuul ñii di jiite Mali ba léegi daf leen a metti mu dem 88 ba ba 91 entre 1988 1991 mu dem ci bokk ci MLA jógewu fa mu demaat bokkaat MPA boobu tamit ba tey Azawad ñoo ko def loolu 91 la woon ak 96 dem créé waat beneen mbootaay gu ñuy duppee ADC loolu 2006 la woon ba nopp ñu ne déeta waaye mu jël ay bagaasam dem Libye. ak âge yi fokk ñu dikk ci moom pour mën a justifier nekkaayu imam Mahmoud Dicko parce que dafa am ñaari xarit yi mu am age gali ci laa nekk léegi pour campel leen diggante ma Kadhafi parce que histoire Mali bi ku tëb tëb rek daal ne gars yi def nañ coup d'état xamoo li xew age gali moom nga xam ne MPA boobu nga xam ne moo di mouvement pour la libération wala boog asawaat euh, yeeg yu demee noonu lee ak MPLA boobu le bi nga xamee ne loolu am na dafa am dafa dem daal dina nag léegi naa collaboré ji ak Kadhafi ndax moom nekk Hadj euh, Galimi nekkul woon islamiste en 1990 la tàmbali dugg ci wàllu islamisme affaire jihadisme ak yu demee noonu dem seeti Xaddaafi xeex na ca Tchad Hadj Galimi xeex na ca Tchad bi am na tamit Amadou Koufa mais Amadou Koufa pël la kooku ci bët bët gànnaar kooku danaa dikk ci mbiram ndax il faut ñu camper situation bi pour mën a ñëw ci coup d'état bi ndax bu ñu xamul muxaddimaat yi may def duñ mën a expliquer pourquoi lii am ndax Hadj Galimi terroriste bu ñu mës a jàpp ci occidentaux yi muy français wala muy allemand allemand wala muy anglais wala espagnol moom la ñuy négocier moom la ñuy négocier Ashgali moom nag dafa demoon ca Xaddaafi dem allégeance ci moom jébbalu ci moom waxtaan ak moom xeex fay itam léegi nag li taal Mali mooy ñi jóge woon ci geeru geeru Libi ba ba ñu daanaa rek Xaddaafi ci printemps arabe bi ñoom tey jii ñoo lëmbee ci bët na gànnaaru Mali ba kenn mënu faa toog kenn mënu faa dëkk maanaam Mali jékki-jékkiwu rek nit ñi ne bu xit ñu am ay islamiste jihadiste yi déedéet Amadou Toumani Touré mii nga xam ne moo doon fabal berber yi di leen yóbbu ca palais ba waxoon naa ko fi xaddaafi am problème ndax ñooñu ak xaddaafi ñoo bokk menn maam danaa dikk ci seen histoire ñoom léegi ñooñu nag ñoo booloo demoon jàppale ji xaddaafi jóge ba xaalis ba jeexee nag ñu daaneel xaddaa si nag ñoom tamit ñu dajale seeni i seeni mbootaay ak seen i sët ak seen i sëtaat yëpp ñëw ca frontière Mali ba ca bët ganaar ba nag taxaw fa nag pour pour pour créer fa état ñoom tamit lii moo indi problème mu Mali mais problème mu Mali tey ku ko doon résumé da nga naan Libi la jógee. aj gaali moomu dafa dafa dafa def lu doy waar dafa mas a dem ci Xaddaafi maa ngi leen di nettali lu doy war toog ak moom di waxtaan ak moom mu waral Xaddaafi tàmbali di wax arab xam nga rek ñu tàmbali seen taxiyaat yooyu lee wax ci lu ko arab bi xam nga yoon te nagam asgal yi jékki-jékki rek dóor ci tabal ji ne ko Mamar al Xaddaafi boobu bi muy wax am na doomu Xaddaafi taawam bu ñuy wax sayful islam ndax ndax Xaddaafi taawam mi tudd sayful islam jaasir islam la ko tuddee amoon problème temps yi gis ngeen jeneen doom ji ak ñi ci faatoo yi demee noonu yi jékki-jékki rek dóor ci tabal ji Xaddaafi ne tekk di ko xool mu ne ko Xaddaafi mu ne ko naam mu ne ko damaa bëggoon ñu bàyyi làkk arab bi teg ko fee te ñu wax berber ndax yow dégg nga berber te ñu bokk ay maam te yow yaa ñu tax a jóge ci sunu suuf maam Mali pour ñëw fii mu ne waaw wax nga dëgg de mu ne ko waaw kon li ñuy def mooy bu ñu waxati arab xadaafi la ko mais lu tax mu ne ko arab ñu koy wax ñëpp dañoo bari te aw làkk képp la aw làkk dong la te ñiy wax arab te gëmuñu yàlla dañoo bari gëmuñ yàlla gëmuñ yonent bi di ay arab mu ne kon léegi xam nga lu ñuy wax mu ne ah mu ne ko kon léegi nañu wax suñu làkk berber bii nga xam ne moom lañu nàmp ci gaz gaali laa njëkk a dégg ci àddina en mu wax loolu mu mu mu mu wax loolu Muammar al-Kadhafi imaam Cheikh Lo ñu ngi lay sant kilomètre carré waaw mu ne ko léegi Kadhafi ne ko nag léegi yow li nga ma wax kontaan naa ci lool daal di jóg génne xaalis bu baree bari ay milliards jox ko ko ne ko xaw ma woon ne yi nekk boori Mali am na ci ku am. nationalisme bi ku bëggee deretam nii ku bëggee boppam nii ne ko arab du dara lu dul aw làkk kot daal di fab xaalis bu bari may ko na ko nag xaw ma woon ne am nga fulla ju toll ne bien que boo waxee arab ma dégg ko mën nañu wax arab waaye nañu delluwaat ci suñu làkk maam bi Xadaafi na ko yow lu ma bu ma jàppoon benn dinaa la gën a jàpp fukki yoon mi ngi mel ne rek tey jii Sénégal ku demoon di dem ci seeti benn kilifa njiitu réew wala yooyu ngeen tàmbali wax français mu ne ko nañ wax wolof ndax français ñu ko dégg bari na te amaluñu njariñ maanaam ci misaal effectivement pas mètre carré c'est kilomètre carré jërëjëf Abdou jërëjëf euh, Cheikh Safi Lo ñu ngi lay sant bu baax baax imam a ah, kay léegi nag loolu moo am ci kooku nga xamee ne moom moo di âge gali léegi nag âge gali mi rek dem daal di nekk euh, imam dikko moo dem seetu ko mu nekk xaritam moom imam même imam dikko moomu daal di dem seetu ko nag mu daal di nekk xaritam ñu toog foofu nag di waxtaan ba yépp am ndax imam mi ngi doon jiite ci benn dëkk bu ñu tuddee Batabulu Batabulu foofu la daan nekk nekk fa imam di prêche mais prêche bi dafa tàngoon nag dafa tàngoon jëpp jëpp jëpp jëpp jëpp gouvernement bi nag bàyyiwul ko woon xel te it moo jiite woon au conseil le mu jekk loolu 2013 après 2008 mu dem ci IBK ba mu demee ci IBK nag dafa dem ca palais ba IBK jël ko fa mu fay liggéeyee moom imam bii loolu la ko ñëpp bàyyi xel il était très proche ndax daf ko jàppale waaye bi mu koy jàppale dane ko ñaari condition laa la ñaari condition laa la tëralal yow yow yow Ibrahima Boubacar Keita xam naa ni góor gi damaa yaakaar ne dafa am ñaan eh, maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi bàyyi audio bi fii danaa ñëw léegi def ci journal bi dikkaat ci li tax dimbali leen ma rek li tax euh, euh, ñetti ñaari condition yi nga xamee ne moom la ko euh, imam di ko waxoon Ibrahima Boubacar Keita pour ñu mën a liggéey bokk kon maa ngi maa ngi jéggalu parce que dama dogoon mbir yi ngir dem def joxe ji journal bi sept heures fi mu toll nii sept heures et dooru jot léegi nag imam di ko dafa demoon ca Ibrahima Boubacar Keita mi toog di waxtaan ak moom ne ko damaa bëggoon ñaar moom mooy tox def boo fekkente ne falu nga bu ma la jàppalee ndax Ibrahima Boubacar Keïta mi ngi woon ci deuxième mandat fi mu toll nii mu ne ko accord bi ñu njëkk a def mooy premier point bi mooy maliens yi seen bopp ñu bàyyi corruption corruption bi dafa bari loola ger bi xëcc dafa bëree bëree bari ba nga xamee ne économie réew mi mënatu la dox imam bi nag ne ko fokk boo faloo corruption moom moom dafay jóge wala boog na nga ca gar sa tànku tubéy ba lépp loo man nga def ko ñoo noté muy premier point maanaam lutte contre la corruption Ibrahima Boubacar Keïta signé imam di ko signé mu ne ko dinaa la jàppale itam ndax yàlla jox na ma mbooloo waaye ñaareelu point bi mooy mu ne ko ban la mu ne ko mooy nga rétablir administration bi ci territoire Mali bi yépp maanaam amut du amati benn gox ci ci un million deux cent quarante et un mille deux cent trente huit kilomètres carrés boo xam ne bii kenn dafay toog naan maa moom ruq bi euh, azawat ne maa moom lii impela ne maa moom lii ñii ne maa moom lii territoire bi yëpp nga delloosiwaat ko yóbbu militaire yi fi yëpp nga xam ne léegi Mali suuf si yëpp suufu Mali lay doon Ibrahima Boubacar Keïta signé imam di ko signé waaye fan la ñu mujj euh, fan lañu ñu mujj mooy Ibrahima Boubacar Keïta bi mu faloo loola da caa deful dara mais mais nag avant ci mandaam bu njëkk bi ak yooyu toog nañ waxtaan jox euh, imam bi daana am ay salaire am daanañ ko jox ay faveur nekkoon na ci pale bi mu ba demee ba nga xam ne nag léegi mouvement islamiste yi bari nañu au nord te te nord pël yi nga xam ne ñoo nekk foofu foofule maanaam pël yi pël yi nekk Mali te ki leen jiite di Amadou Koufa tuddoon naa ko léegi nga xam ne dafa am doole foofu la nekk tamit jihadiste te jubóowul ak kii nga xam ne moo di Ibrahima Boubacar Keita ñooña moom dafa daan jokkoo ak ñoom am ay connexion moom imam bi di waxtaan ak ñoom pour tout simplement affaire yi dal bi nga xam ne nag dem la ba xool ne népotisme li li li français yi daan népotisme népotisme ci wolof baatu français la mais boo ko doon def tarjama bi mooy tey dañuy fal benn chef d'état ku mel ne imam Cheikh Lo ñu ne ko léegi yow yaay président Mali par exemple Cheikh Lo Safi toog waaye ay doomam lay teg ci wetam ay jarbaatam ay doomu bàjjenam ay doomu nijaayam euh, du xam seen compétence du xam-xam am nañ xam-xam bi waaw wala loolu la tuddee loolu la tubaab bi tuddee népotisme léegi nag népotisme boobu moom la ab euh, Aboubacar bu euh, Ibrahima Boubacar Keita def imaam bi nag na ko lii du fi jàlle xeex corruption ba ma la doon wax defoo ci dara ndax yaa fi njëkk indi corruption sa doom ji nga xam ne mi ngi tudd Karim Keita ay milliards nga ko jox mu nekk Espagne am fa ay château di jënd ay kër yoo xam ne kenn xamul lu mu toll loolu loolu merloo na Ibrahima Imam Dicko mu ne ko ñaareel bi itam lan moo tax léegi bët gànnaaru lépp lépp administration mun a fexe ba defal ko defe naa ne népotisme maa ngi doon xool baat bi ci arab mais almahsubiya lañ ko tuddee ci arab almahsubiyaat mooy euh, pluriel bi bi siin almahsubiya mooy népotisme bi loolu amee moom moom Ibrahima Boubacar Keita na ko daal man maa ngi doxal sama am sama programme politique waa ji daal di mer dem ba mere nag lan la imaam bi njëkk a def loolu tam fokk nu bàyyi ko xel imaam bi dafa am beneen xaritam bu tudd Boye Aydara Boye Aydara imaam la comme moom ma nga ci sigu waaw xaritam la marabu la waaye nag euh, ay dara daawul def ay prêche maanaam dem ci àjjuma yi jumaa yi di def xutbaak yooyu mais dafa amoon marab bu la maanaam sëriñ la boo xam ne bii li ma ko mën a firee fii ci biir Sénégal mooy ku yàlla joxoon kurus la loolu mu tasaw yu fuuna yi suufiyanke yi xam nañ ko léegi nag booy ay dara nii dafa nekkoon xaritu imam Mahamad Dikko ba noppi di ko ñaanal xaritam pire léegi nag euh, moom mii bokk na ci ni ko conseillé na ko léegi da ngay berse daara yi bopp wala nga génn dem léegi nag imam bi génn daal di tàmbali créer benn mouvement di woote bi mu wootee nag pël yi dégg ko ku mel ne Amadou Koufa léeg yi ñu jokkoo ak moom bu song amee mu ne leen nii nangam maanaam moom connexion boobu amoon na ko ci ñoom Amadou Koufa nag xaritu ba tey euh, kii nga xam ne moo di Ibrahima Dikko Dikko la moo tax mu euh, Mohamed Dikko moo tax nga xam ne dafa dafa naqaree naqaree lijjanti ba nga xam ne fu nekk dafa am connexion moo tax mu dafa gaaw ci mobiliser yàlla daf ko jox moom imam Dikko mu gaaw a mën a mobiliser ay nit nit ñi topp ko barkeel bu ko yàlla defal wala daal ay ay ay jagle ay xususiyaat yu ko yàlla defal taf taf mu mu mobiliser dem na sax ba renseignement généraux yi dem di ko jéem a reju di ko di ko di ko espionné mais dafa am fit bu ñëwee du leen nëbbu seen dara dafay ñëw te toujours di ngeen ay garde corps yoo xam ne yi ci àll bi la ñuy jógee kenn xamul fu ñu loolu nag moo tax mu créé benn mouvement tudd ko M5 M5 mooy ndax le cinq juin 2020 la ko Ibrahima euh, di ko créé ñu tuddee ko mouvement M M bi mooy mouvement cinq bi mooy mooy juróom juróomeelu fan bi ci weeru juin ñu tuddee ko mouvement M5 mouvement m cinq boobu nag ñoom ñoo indi problème yi des problèmes yi nag mouvement M5 boobu la armée bi mi ngi doon déglu ndax armée Mali dafa am ñu nekk ci biir centre bi Bamako am na ñoo xam ne ñu ngi boori Ségou am na ñoo xam ne ñu ngi ci yeneen bët bët gànnaaru réew mi léegi nag wala Tumbuktu ak foofu tam dafa day faral di tànk yenn saa yi imam di ko mii créé euh, mouvement bi ba pare daal di wóor nit ñi jaxase carte gi armée bi nag toog du ko seetaan mais armée bi ñi nga xam ne ñoo def coup d'état dix-huit dix-huit août deux mille vingt bii ñu génn dëppook talaata ay ponkali nit lañ yoo xam ne yi dañoo am bopp maanaam maanaam duñu ay duñu ay sagari soldat nii nii nii ay commandant lañ ay lieutenant lañ ay colonel lañ te ñi nga xam ne ñoo ci jiitu ñëpp ba ci seen porte parole bi kenn ku ci nekk dem nga Égypte ñe ñett ñu ko def ñaar ñi ci def dem nañu Allemagne Algérie dem na Allemagne dem nañ itamit France def fa formation te France nekkoon nañ au courant ci coup d'état bi loolu moom maa ngi leen jox information boobu parce que xamoon parce que renseignements généro yu France ak américain yi ñu ngi ñu ngi biir Mali mais dañoo seetaan parce que armée gis nga coup d'état coup d'état ci Mali yàgg na faa def am ñeenti coup d'état yëpp amu ci benn coup d'état boo xam ne bii def nañ ko ci précipitation maanaam dañ ko yàkkamti bii dañ ko togg ay weer di ko togg di ko togg di ko togg di ko togg di ko togg ba mu ñor ñu waxtaan ceeg soldats yi waxtaan ceeg caporal yi waxtaan ceeg chef yi kan ci kan ci ba noppi togg ko nag ñëw taxaw moo tax bi ñuy dem ci palais bi pour génnee pour génne Ibrahima Boubacar Keïta amatuñu woon benn problème parce que booba généraux yëpp daal ñeenti généraux xaw ma juróom ñoo lankoon ak bu ak bu ak kii ak premier ministre bi di buubu ñu lànk wéram jàpp leen dugal leen ci kaso bi moo tax ñoom ba léegi ñu ngi ci caserne boobu nga xamee ne digganteem ak capital bi ci mi ngi toll ci 15 kilomètres di akati moomule wala am na ci mu ñu ko tuddee noonu foofu la ñu leen denc parce que dañoo d'accordul woon ci coup d'état bi coup bi nag bi mu amee lan la imam di ko wax imam di ko dane bon moom léegi mission bi jeex na wasalaamaaleykum wa rahmatulah jeex na tàkk moom li mu bëggoon am na ko xaritu Ibrahima Boubacar Keïta la woon nekkoon na ci pale bi di liggéey amoon na fa salaire ñaari condition yi mu ko waxoon corruption bi nañ ko xeex ak administration bi yëpp yëpp ñu nekk fa mënoo ko xeex naa la ba nga jóge fa bàyyi naa loolu nag am na ci ñu xari na trop trop trop waa CEDEAO parce que waa CEDEAO dafa am ñoo xam ni dañoo wax ne nañu dellu si waat seen dernier communiqué bi nañu dellu si waat Ibrahima Boubacar Keïta teg ko ci bopp réew ma am yeneen organisme yu ne déedéet lu tax ngeen bëgg a fekk benn nit képp ci population boo xam ne bi nangami million lañ bëgg faa tegaat kenn ci bàyyi ba bàyyi askanu Mali ñu nekk ci souffrance loolu nag moo indi coow li coow loolu dafa am après léegi nag Pierre Buyoya Pierre Buyoya mooy kan Pierre Buyoya jiite na fi Burundi Burundi gii nga xamee ne barki démb la seen président bi gaañu Burundi Pierre Nkurunziza moo fa nekkoon faatu na temps yi rek yàggul dara mais bio yaa mi jiite na ñaari yoon ba ñett yoon Burundi moom moo taxawal nag léegi UA euh, mooy Union africaine ak CEDEAO euh, maanaam africain yeeg ak Mali ak Sahel bi maanaam bi Mali ak UA moom moo leen fa toogal moom nee na dafa bëgg ñu rétablir at ordre bi mais seen digganteeg soldaar yi li tax mu doy waar mooy population bi ñoo d'accord ak armée bi te armée bi ñoom nee na du ñu dellu ginnaaw léegi nag CEDEAO ñaar la mën a def ñaar la mën a def pour indiwaat Boubacar Keïta ñoom seen dernier communiqué bi nga xam ne matagul ñaari fan démb lañ ko génnee dañu ne nañu rétablir at Ibrahima Boubacar euh, Keïta à la tête du pays ñaar la. CEDEAO euh, mën a def mooy nañ defoon Gambie te Sénégal gii moo ko jiite woon fab seeni soldaar jox leen ay ngànnaay jox leen ay char de combat ñu dem dugg ci réew ma xeex ak soldaar yu malien ndax ba ko fi yaaya jaamee defee Sénégal gii ñoo dem laxasaayu fëgg buntu leen jóg ndax booba euh, président Barrow xam nañ ne boo dafa nànk dana falu te buy affaire yi demee nii du jàll ñoom Macky Sall ñuy dem waxtaan ak waa CEDEAO waxtaan wu jekk Sénégal a jiite woon euh, mbooloo ma Sénégal ci boppam moo jiite woon mbooloo ma def seeni charte de combat liggéey fa jële ko fa léegi nag CEDEAO loolu doo nga la mën a def Mali te bu ko defee Mali mën nañoo am problème parce que armée bi yëpp dañoo topp topp topp ci gannaaw euh, colonel yi tey tamit armee Mali baaxoon na waaye Ibrahima Boubacar Keïta moo ko yàq ndax corruption corruption bu mettee méttee métti loolu bokk na ci li nga xam ne dafa métti Ibrahima euh, euh, maanaam dikko dikko ci boppam économique Karim Karim Karim Karim Keita Karim Keita mooy kan Karim Keita mii bokk na ci ñi nga xam ne bu ko jihadiste ci jàppee dañ koy rey parce que moom sax dañ moom sax jéem nañ koo fexeel mais dafa jàllul mooy taawu Ibrahima Boubacar Keita mii ngeen di dégg parce que dafa dafa def loo xam ne lii tey normalement moom bu fekkoonte ne nekkoon nañ ci réew moo xam ne mii am na droit dañ koy fab ndànk rek dugal ko ci kaso bi ba ba yombal xeam dut ko génneeti ay centaine de milliards la jël ci keesu état bi yóbbu ko ay centaine de milliers la am ci ay hectares yoo xam ne am na ko ci yeneen réew am na ko ci yeneen réewu tugal yoo xam ne duma tudd seen tur pour la pour éviter la publicité te loolu Ibrahima euh, imam bi ko yëg na ko Karim Keïta nii donc loolu chef d'état yu bare bari ci africain loolu moo indi seen problème bu nu bu nu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu faloo dañuy def népotisme euh, al mahsubiya léegi nag népotisme boobule loolu Kadhafi waxoon na ci. Kadhafi sayfal islam mii xaalis ba mu ko joxoon mu daal di financé Sarkozy yéen a koy fàttaliku gis nga fa mujj moom itam Sarkozy dafa mujj wel xeex ko ba mu jóge foofule. armée bi nag ñoom nee nañ mën naa am ñu def transition pour def ay élection jëm ci kanam mais dañ ne ñi ngi déglu waa CEDEAO parce que dañoo mere waa CEDEAO nee nañ daal ñu ngi wax mais wax waxu politique la CEDEAO nag bés bu ñu fi dof dofloo ba yóbbu seen ay soldats foofule ah xanaa lenn lenn moo leen mën a dimbali bu fekkente ne Sénégal participé na ak Nigéria kon moom mën nañoo gañe Mali waaye li Mali yore ci soldat bien que seen armée bi bariwul ay logistique su fekkente ne songe na leen loolu mën naa am am musibaam ñaanuñu yàlla nag yegg fa loolu nag ay prévision la ay prévision tey loolu yaakaar naa ne CEDEAO boo deful nank du ko def en tout cas français yi moo si ñoom ñoom téye nañ seenu askan américains yi nee leen bu leen demee ci gox sàngam ambassade bi toog leen ci parti sàngam ak parti sàngam bu leen fa dugg léegi nag sur le plan économique ci boppam dafa daanu dafa daanu wax dëgg yàlla Euh, amatuñu dara marché yi taxaw na moment bi euh, coronavirus bi jaar na fa tëj nañu frontières yi CEDEAO nee na leen kenn du dugg kenn du génn du ci jaww ji du ci du ci jéeri ji fermé nañ tout léegi nag lan moo mën a am armée bi juboo nañ opposition bi waxtaan nañ ba juboo xool nañuy def opposition bi rafetlu nañ loolu imam Dicko nag moom delluwaat na ca jàkkaam ma nga tàmbaliwaat di prêche salafiste la nag ma fàttaliwaat ko waaye yàlla dimbali na ko ba nga xamee ne tamit dafa juboo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mutasawwifuna yi wax naa fi léegi booye ay dara mi nga xamee ne ak xaritam la Amadou Koufa Amadou Koufa pël la euh, ci jihadis yi la bokk waaye nag moment bi ñu wax ci 2020 tur yi ma fi wax ñu ci bare bari ñenn ñi blessé nañu ñenn ñi faat nañu leen ñenn ñi rey nañ leen ñenn ñi dugal nañ leen ci kaso bi parce que nag bu leen fekk fàtte ne fàttaliku leen ne force armée Barkhane force Barkhane bi te France jiite ko ña nga ca Mali te léeg-léeg nga dégg ñu ne faat nañ kenn ci jihadiste yi waaye bu ñu ko faatee ñaari am na ci yoo xam ne dañuy yéex a def euh, communiqué. tamit Sahel bi foofu la ni ma waxee léegi ne Pierre Bioya moo jiite li jëm ci Sahel bi foofu la te ak cinq réew yi nga xamee ne France dafa leen jox ay milliards ak milliards pour ñu xeex jihadiste yi diggante euh, Burkina Faso Tchad Mali euh, ak tamit dëkk bi nga xam ne moom moo di Mauritanie voilà mais ba léegi gis nga ne affaire bi sotteegul léegi daal gudd gàtt mooy imaam ko amoon na xarit bàyyi na xarit ba condition yi mu ko tëral loolu mënu ko woon a def léegi nag ñoo ngi déglu euh, question yi nga xam ne dafa jëm ci gouvernement Mali ak euh, ak attelage bi maanaam li ñu sampee li ko tàmbalee woon ci premier ministre ba di Boubou Sy ba fii ñu toll ak tam yenn ministre ñoo fa démissionné woon pourquoi ñu démissionné dikki tamit ci Abu Boubacar Keïta bi nga xam ne Ibrahima Boubacar Keïta bi nga xam ne moo jiitu woon nationale ba lu jiitu muy nekk chef d'état ma fàttali tamit ne loolu dama leen ko jox xabaar rek xarit la woon tamit ci suñu mbokk mi faatu suñu président bi di El Hadji Babacar Touré digganteem ak Ibrahima Boubacar Keïta ñun ñëpp xamoon nañ ko xaritam la woon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh